chez Mario Mbaye doon ko waajal cantam yi nga xam ne c'est devenu une tradition à chaque année bu màggal amee mu def ko donc on est là la presse pour waxtaan ak moom ci euh, préparation màggal gi parce que mi ngi woon bitim réew euh, j'en suis sûr waaj na ko def ci ay moyens yu bëree bëri parce que cant bi demande des mais aussi kër gi mu nekk y a des rumeurs qui que ni këram la est ce que moom këram la ou pas on va en discuter ñu waxtaan ci baax mais waxtaan maa ngi leen di fay. yaa ngi si jàmm. sant Serigne Touba ayca nuyul yi Baye Fall. Ah, maa ngi nuyu sama mbokk jullit di nuyu sama mbokk Baye Fall. waaw di nuyu sénégalais yi. tamit presse bi ñëw. tamit xam naa ne solo naa leen. waaye tamit maa ngi leen di sant on est des sant tamit di leen santaat. parce que lu ma xewle ngeen ñëw. loolu rek yëg-yëg la. ja ñaar waaw. <laughs> <laughs> laaj bu njëkk moom mooy noo dundee màggal gi. Euh, murit nga taalibe taalibe Serigne Saliou nga ku ne xam na Mario Mbaye ci yoonu murit naka nga doon waajee màggal gi. waaw ah, màggal bi di ko waaj kon samay mbokk murit nañ koy waaje waaje mooy sant Serigne Touba rek ah. ndax sëñ bi moom lii mu ñu liggéeyal pour ñun la ah. kon nag ah bi woon nañ si bay suñu waar de xar si suñu tànk tubéy parce que lii yëpp pour ñun la liggéeyul ko pour kenn pour ñun la ko liggéeyal ñun murit kon nañ si xar suñu tànk tubéy ndax sëñ bi moo ni sama bis bi hmm. képp ku ma si jàppale xar gileem nag ginaar loo si am rek def ko si kon nag dañ koy sant bisum cant la. d'accord relation bi nga am ci showbiz bi ak artistes yëpp lu tax amoo ko ak jàngkat yi parce que seet nañ ni lépp looy def di lu jëm ci jàng ba Kër Massar ba fii tubaa da nga koy jox Mohamed Alla Diop yeneen jàngkat yi fi nekk nga xam ni euh, Euh, c'est des grands noms ci àllum sikarula lan moo tax aussi ñoom du ñu gis say bës ñoom ñu ciy teew danga nga wala ak ñoom liaison wala. ankay man ñëpp laa am ak liaison. Ah. waaye yàlla daa dogal ni Mouhamed Alla Diop kon nu ma koy waxee c'est mon te bis bi Mouhamed Alla Diop moo ko sàq man bis yu may tëgg yëpp amaana Mouhamed Mouhamed moo ko sàq parce que mooy jël bis ma jëlal ma may nag sant rek laa mën a def ndax bu jël nit ku yëg-yëg weesuwul loolu. jël jàpp ay bisam ne ma yow laa koy may sa biir kër laa koy def. ab cant la maa ngi koy sant bu baax di ko santaat. waaw fan nekk nii kër Mario Mbaye. waaw sama kër papa laa nekk. sama kër baay laa nekk. Mhm. waaw. waaw lan la kër papa. sa kër papa nga nekk. waaw d'accord parce que dama dégg ay rumeur que ñu ne fii sa kër la et yaa koy tabax euh, y a très am nga projet bu yàgg ba taxawal ko di ko tabax donc du sa kër kon sa kër papa la. wala yaa ko jëndal may ko sa papa waxal mu lay rek. en tout cas daal sama kër papa man ak samay rakk ko bokk kon suñu kër la ndax sama kër baay sama kër la. ñu wax actualité sa diggante ak Sidi Diop mu ngi ci ay jafe-jafe mi ngi ci ay problème ba lundi lañ la war a taxaw devant la juge donc xaritam la bi nga yëgee nouvelle bi takk nag nga ko yëgee est que bokk nga ci les premiers ñu ko njëkk a yëg waaw di ko naqarlu waaye Sidy góor yàlla dëgg la te ab góor la te xam naa ni lii dal ko jommul kenn waaye ñoo ngi koy ñaanal di nga xam ni foofu mu nekk yàlla na ko fa yàlla jële lu mu gën a gaawe te xam ni ay ñun ñëpp ay mboqam ak ay xaritam ñoo ngi koy ñaanal jàmm si fu mu nekk te suñu xel moo ngi si moom bu baax est ce que da nga jël foot bi teg ko ci kawam comme ñu ko bëri di ko critiqué naan Sidi Diop euh, responsabilité yi mu war am en tant amu ko parce que ku mel ni moom waroon na weesu di dawal sans permis à ce qui paraît bi mooy deuxième fois muy lii di ko dal daloon na ko ci beneen euh, oto tey jii mu dalal ko donc ñu bari ñu wax naan est ce que responsabilité mu ngi koy jël à 100 pour cent. waaw daa juum rek nit ku dul juum amul muy man muy keneen a si am juum nag ñëpp a def Youssou Ndour woyoon na ko mag dina juum. ah xale dina juum ñëppay juum daa juum rek. ak sa xel dal na ci. ah dañuy sant rek di ko ñaanal ñaan rek lañ mën ñaan lañ mën ñun nag dañuy ñaan te yàlla lu ñuy ñaan yàlla nañ ko suñu borom may ak màggal gi Siri lundi incha allah damaa bëgg mu fekk ko biir këram. alors Mario ginnaaw bi ñu la nuyoo ñu ngi lay félicité ci bés bii nga amal ci euh, lendemain màggal gi. di sant Serigne Touba initiative bi naka la dikkee ak ban jeexital lay am par rapport ak euh, cant gi parce que dañuy gis Mario ci showbiz bi da ko gis ci cant gi léegi cant gi ban jeexital lay am par rapport ak dund bi ngay dund ci showbiz bi. waaw xam nga àdduna mooy nit ku nekk daa am vion te nit boo amee vie divertissement si nit la bokk divertissement si nit la bokk te nit nag ak divertissement ñoo ànd. kon dañuy sant rek waaw. Mm. Euh, Kaaw Aziz Dabala mënuñu tëj te duñ ci wax on a vu l'arrestation euh, d'un présumé meurtrier alors yow loolu aussi en tant que sénégalais en tant que Patte d'Oie lan la waaw Kaaw Aziz Dabala di ñaan justice def liggéeyam justice na def liggéeyam justice nag bu defee liggéeyam jàppale ñu si parce que tamit ñoo ngi koy naqaru te maa ngi jaale seen waa kër bu baax ndax métti nañ ñun ñëpp métti nañ ñu ñun ñëpp. kon Aziz ñoo ngi koy ñaanal yàlla fii mu dem gënal ko fii mu jóge di ko masaw seen waa kër waaw wéet naa bu nee na wéet nga yaa ne waaw kay <laughs> mais damaa xamul si lan nga wax euh, daaw heure bi ma ngi fekk madame à tes côtés mu lay toppatoo di préparer li nga xam mooy cant gi waaw comme que nag màggal la ñu fi indi nañ wax màggal te non parce que parce que màggal lañ nekk ak sant Serigne fii monsieur ak madame indi wuñu si màggal ñu fi indi. mais mu ànd ak a kii de. ma mos a wéet bu ma amee sama yaay am sama papa rek du ma waaw yàlla nee naa man màggal bu ma xasee ba dugg tuubaa ànd ak samay ñaari waajur ànd ak sëñ bii ma sëñ Moustapha Imam aw ma lu may ragal. da ngaa takk Alima ah. man xam naa loolu. waaw xam na ah, man takk nga wala takk ko parce que ñu ngi laaj question boobu est que Mario takk na ko. nee naa la bu jotee rek yomb. ñoo ngi ñaan lépp bu jotee rek yomb. jaajëf <laughs> waaw. wéet na. wéet wéet nga yaa ne waaw <laughs> Euh, daaw heure bi ma ngi fekk madame à tes côtés mu lay toppatoo di préparer li nga xam mooy cant gi. waaw comme que nag màggal la ñu fi indi. waaw nañu wax ci màggal la ñu fi indi. mais mu ànd ak a kii de. non man du ma a wéet bu ma amee sama yaay am sama papa rek. non non mais gala moom wéetul sax parce que. kon na Alima waaw yàlla nee naa la man. Hmm. màggal bu ma xasee ba dugg Touba ànd ak samay ñaari waajur ànd ak sëñ bii ma sëñ Moustapha Imam aw ma lu may ragal. da ngaa takk alima ah, ah, nee naa la. carrément man xam naa loolu. xam na ah, man takk nga wala takk ñu ngi laaj question boobu est-ce que takk na ko. nee naa la bu jotee rek yomb ñoo ngi ñaan bu jotee rek yomb. jërëjëf jaajëf